đi chết đi chưa đâu gần đi gần chơi đi phi hoài nhà một cô lời không muốn chỉ chỉ đi dấu cả Toujours dans votre scandale du jour de ce vendredi 23 euh, octobre 2023 de vous ñu seetaan ni vidéo boo xamante ni kii di Ousseynou Seck alias Akenaton, talibé Ousmane Sonko yi fervent défenseur ñi nga xamante ni moo parti bi ñu tas muy Pastef yan kaddu la yëkkati ñu dellu si waat daal di commenté du samay kaddu nag kaddu Ousseynou Seck la Akhenaton ki nga xamante ni mooy saaga kilifa diine fi saaga Mansour Khalif général des Tidianes saga fi Seigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides saga fi ki nga xamante ni mooy Bass Abdou porte parole parole euh, du xalif euh, général des Mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké saaga fi ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahi Niass saaga fi képp koo xamante ni kilifa diine nga am na loo représenté taarix euh, l'islam ci Sénégal nañu déglu ñu Ousseynou Seck yan kàddu la yëkkati jëmle ko ci mentoram bi di Ousmane Sonko ñan ñoo ko topp. nag li ma jaaxal ci mbir mooy caga bandi yeeg jigéen ñëpp nekkate Sonko la ñu ànd loolu ma jaaxal ku ma loolu ma wedd ko nga xam bandi mana maanaam genn xale yi ñoom xale yi doon nappaaje xale seen caga ji ñoom ñëpp Ousmane Sonko lañu àllal da ngeen bàyyi caga ji ndax caga jépp nekkata Sonko Sonko caga jépp ñooma woo ma ne leen ñu ne ma ñun ñëpp Sonko lañu ñoo ngi ak seen vidéo yeeg seen lépp yu lax yeeg ñambi yeeg yu lax yeeg yu lappax yi lépp lañ yore lépp daañu ko génn jox la ko nga teg ko dooberaam lañ ñun ñëpp ñun ñëpp Sonko lañu ànd ma leen lan ñu ne ma duñu dara ay duñu tus ndekete caga ji yëpp Sonko la ñu ànd ci mës gis li mel ni hii ci waaye da xam ne nekk dëgg la ma kenn woon nag bu ma kenn woon nan ma léegle da ngeen di géer nañ leen ci dem dinaa ko dugal YouTube def ko ci réseaux sociaux yi tàggee adduna bi ñëpp daañu yéen su ngeen wàcc ci aéroport bi adduna bi fu ngeen dama daañu leen xàmmee bu soobee xam naa ni ñu koy defee danaa fexe ba danaa ko def ci réseaux sociaux yi def ko ci internet bi ba fu ngeen wàcc ci àddina bi nit ñi xam ne yéen ak seeni photo dama koy monté vidéo yi dugal ko YouTube nga xam ne dootul dañ daay man tamit xam da ngeen xeex mënu leen a xeex xamu leen ni ngeen ko seqal ngeen foog Sénégal yéen a ko moom ñu bokk ko yéen xëccoo wuñu ko yéen xañu

ci soo lëlbatee di nga maanaam ay jàgg lañu ay maanaam ñoo xamante ay raada lañu ñoom ñooy nekk ci réseaux sociaux yi di défendre kii di Ousmane Sonko waxuñu woon ko nag ki ko wax muy Ousmane Ousseynou Seck ak Kenaton bokk ci yéen ndekete caga jeeg bandi jeeg ñu lax jeeg ñëpp ngay gis ci réseaux sociaux yi ñu miine ko ndekete ay caga Ousmane Sonko lañu loolu tamit mënuñu ko weddi ndax suñu gisee Ousmane Sonko bëgg lu mel ni ay suite euh, boti mooy loolu daal les filles faciles loolu la Ousmane Sonko bëgg moo tax caga jeeg bandi ji yëpp ànd ak Ousmane Sonko nekk ci réseaux sociaux yi diko ko jey di ko jey ko muy jàllaxu foog ni moom moo ca nekk ba tay ji li ko dal dal ko ci gars yi di woote comment wala sans comment en tout cas muy ay kàddu yi nga xamante ni kii di Akhenaton Ousmane sekk yëkkati na ko ci ñi nga xamante ni ñoo topp Ousmane Sonko di caga ji ak bandi ji ñoom ñëpp Ousmane Sonko la ñàndal nit yu baax yi nag ñi ngi xool lu baax dem ànd ak moom kon donc sénégalais ñoo am raison pour que ñu tourner le dos ki nga xamante ni mooy le président des terroristes ki nga xamante ni dañ ko jàpp en complicité avec des entreprises terroristes jàpp plus si moom lu toll mille et personnes yoo xamante ni ñoom ñëpp ay actes de terrorisme appel à l'insurrection